moom mi nga xam si nag moom moo di Abbas Fall nag ginnaaw nag euh, ay jàppante bi ñu amee nag ci ginnaaw cortège bi nga xam si nag doon na ko amal ci euh, Ndakaaru Njaay ba tax na moom mi nga xam si nag moom moo di Abbas Fall rek ci guddi googu nag ci lan taaloon siège bu xalifa euh, Sall bi mu nekk nag loo xamante ne si nak am ñu ko tuumaal ne moom mi la nii la ba tax na moom mi di Abbas Fall ñu ci bari doon wax na. dañ kaa convoqué mais nag Abass Fall génnoon weddi rek na kenn convoqué wu ko ginnaaw nag ba loolu amee ba tey rek muy continuer di woyal li nga xam seen nag moom moo di campagne ba tax na rek moom mi nga xamante ne si ne nag moom moo di euh, Bougane Gueye Dany nag ginnaaw nag arrêté bi na ko arrêté ba tax na issant yi nag ñu tëj ko un an de prison trois mois ferme yoo xamante ne si ne nag daf koy tëdd. moom mi nga moo di Bougane Gueye Dany ba pare nag ñu àlamaan ko cinq cent mille mu nekk nag loo xamante ne si nag moom mi di Bougane Gueye Dany rek war na ko fay mu nekk nag lu diis lool nag akum nag région boo xam si nag war na ko tëdd